asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 31 mai 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi mu mel ni ki nag tey yëglikaay sunu làmb la sunu làmb nag tey fi mu xëy ñëw mooy ci diggante Modou Lo ak Ama Sène seen combat ba nga xam ne day ca arène national ba fa la ñu jàpp ne fa la war a amee wala boog moom la promoteur ba bëgg mu mel ni ki day loola ñu bëgg day est-ce que fi mu nekk nii danañ ko amee nañu ko bëggee ndax nag sunu làmb nee na day demande ba nga xam ne moom la ñu dugaloon maanaam daal kayit ga ñu dugaloon di wut autorisation ngir fa nga xam ne mooy stade Léopold Senghor daa mel ni moom ba tey tontu jógeegul ca kilifa jëm si ci ña nga xam ne ñoo organiser làmb ja moo tax suñu làmb jàpp ne day loolu boo sàgganee day ñu ngi ca guddi gu bët waaye jàppal amateuru làmb yi moom sunu làmb nee na boo bëggee dégg-dëgg ñoom bu ñu doon voté day daa mel ni ñoom arène nationale daal moo leen gënal ngir ñu defe fa làmb ja ndax stade Léopold Senghor bee day yëglikaay baa ñoo boo sàgganee day ah est-ce que jot ca dina ndax nag ñu ngay wax waxi defaraat ko moo tax sunu làmb ne day jàppal amateur yi moom la ñu bëgg daal moom comme am nañ seen yëf yi bopp nañ ca dem ca bàyyi stade Léopold Sédar Senghor sunu làmb xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne sunu làmb wax na ci wala keneen ku xëy tey di fa wax di wax ci ñaar ñooñu muy bëre di wax ka mu faral muy Ama Baldé ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo Ama nag waa Pikine lay wax nee na ñëpp sol seen ay daal regroupé wu daal te takk ndaa yu ba dëgër ne ci ginnaaw Eumeu Sène dooleel ko ngir mu daan kii nga xam ne nii moo di motloo te moom ne na sax fi mu nekk nii day dina ko jox caabi ya nga xam ne mooy ubbi buntu bay daan kii nga xam ne moo di Modou Lo moom Ama Baldé moo ko wax jàpp na ne daal Eumeu Sène mag la te mooy roi des te dañoo bëgg ci roi googu ba tax na daal bëgg koo gunge ngir mu wan Modou Lo loo xam ne day bu ca Modou jógee moom dana xam ne bu baax a baax a baax ba góor moo koy bay sunu làmb xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne yëglikaay ba ñëw na ci waaye keneen koo xam ne mu ngay wax mooy guy gi ba mu génnee ca lit TV wala boog ca Leewtoo TV wax fa ne daal digganteem ak Siteu day li leer ba leer ba mu ko daanee daal taxul mu yokkal ko dara suñu làmb ñëw na tey yeggaliwaat ñu wax jooju wala jot la jot liwaat ñu jooju wax moom guy gi mu ngay wax daal ne ka daan ba nga xam ne daan na ko Siteu daal amul fenn foo xam ne yóbbu na ko fa sunu làmb xëy tey ñëw dina ko wax keneen koo xam ne nii moom jafe ya mu ne xëy tey ci bi di sunu làmb di ca wax ay di ca indi ay leeral muy Ibrahima Faye bés ma nga xam ne day mooy borom pay-per-view ba Ibrahima Faye nag moom mooy coordonné wàllum téléthon booba nee na fii mu nekk nii day liñ ci jot a koo encaissé xaalis daal toll na ci ñeenti million te ñu ngi xaar yeneen xaalis yoo xam ne day war naa ñëw ci fan yi nga xam ne moom la ñu jëm ay dig yoo xam ne digg nañ leen ko te moom yaakaar na ne day loola yëpp danañ ca jot nee na am na yeneen yoo xam ne tamit mu ngi faral di ñëw ay 1000 francs ba ci yeneen xaalis yoo xam ne da koy ëpp maanaam daal ñoom xeebu ñu ca dara la ñu bëgg nag daal mooy booy bambara day feebaram boobu la ñu bëgg mu tàqalikoo ak ñoom bu dee faj dong nga cay des daal ñu taxawu ko faj ko ba nga xam ne dana delluwaat ci sagoom sunu làmb xëy tey wax ñu ko nee na nag na ne même bu dee France la wala feneen itam jar na ko te pare nañu ñoom ngir jéem ci la ñu mën ngir yóbbu ko faji ko wala fii ci réew mi sax bu dee am na clinique yu ko mën a ñoom daal pare nañu ngir moom na wér daal loolu mooy seen yéene sunu làmb tey wax nu ko leneen loo xam ne yëglekaay ba xëy na ñëw ca mooy combat xale boo xam ne de sunu làmb ne na jéy seen moo ko taxawal wala jéy production muy pakale senior bu kër mbay fall ak kii nga xam ne moo di tampon ndaw numéro 2 wala tampon 2 yëglikaay bi neen jàppal jooju làmb le 31 juillet daal la fas yéenee am sunu làmb xëy tey ñëw dina wax loolu leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci mooy ab kalaasante maanaam daal sànneen tey xeer ci diggante Modja ak Kewel Modja nee na day moom li mu xam xam ko day moo dàq xeex kii di Kewel te itam moo ko dàq bëre bëre bëre piir duma ci sax moromam loolu la ko ja wax Kewel tontu ko ne ko yow daal del wax rek waaye li ma la xamal day mooy kani yow buñ ca yeggee li nga xam ne day loolu ngay wax yaa ngi nax sa bopp bu baax a baax wala ñu la koy digal kéwél ñu ngi lay nax ndax loolu ngay wax moom baax na ba nu yegg ca loolu la ko kéwél wax doomu dàngu moom su lam ne na moom day fi mu nekk nii boo sàgganee ah ci pression lay dugg ndax nag combat bi mu jëm digganteem ak Farouz ay rakkam day ñëw nañu wane lu leer lañ muy papa yadd ak gàmmu géey ku ci day combat ba nga amoon da koo daan moom nag fi mu nekk nii moo ci des ndax moom loolu du nekk pression si moom suñu làmb xëy di ko laaj beneen combat boo xam ne day taxaw na te yëglikaay bi ne na le 22 juin te la fas am ci diggante kii nga xam ne mooy Aline Diop numéro de nekk écrit Lamsar ak Njaaxum nekk école de lutte Cheikh Mbaba sunu làmb xëy wax nu ko Sambay promoteur moo fa jaar leneen loo xam ne tamit danu cay dem muy kii nga xam ne nii moo di dut saane ci làmb ji àndul ak dóor la maanaam drapeau chef de bii di waaj ñëw daal yëglikaay bi ne na li leer ba leer day boo bëggee dégg-dëgg dut saane fi mu nekk nii day jaar na ba yegg lool ndax nag équipe yaa ngi koy xëccoo rawatina Fatick. ak Kaolack ñoom ñii daal ku ci ne daal dem nga ci këram ngir bëgg daal mu ñëw bokk ci sab équipe sunu làmb xëy tey. internetu Leewtoo TV ni ngeen ko xamee rek dañ leen di nuyu ziar leen balu leen ak te baal leen di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jéggal comme ni ngeen ko xamee nag tey dafa tombeek aljuma tombeek aljuma bi nga xam ne moom mujj ci weeru koor bi. waaye si atum 2019 bii ñu ne ñu siy bàllu ñëpp àq di ñaan yàlla buur bi li ñu jot a wóor yëpp yàlla nañu ko nangul te def ko ngëneel tàbbal ko si àddina bi yëpp barke yonente bi sallallahu alayhi wa mais di leen nuyu encore une fois rek di waxaat rek kan yéen internet yi suñu doole waaw loolu du taaye di ko wax parce que ndeysaan kiy wax kiy déglu mooy mbokkam waa te kii fee feeñit ki koy seetaan mooy mbokkam te yéen ñuy seetaan di ñu déglu di fay seen xaalis kon dañ leen di ñaanal yàlla rek yàlla na leen yàlla gën a kàttanal amuñu seen fay ak fu ngeen mën a ne si àddina bi amuñu seen fay xam nga tey nag bu fekkee dañuy ñëw comme si journal sunu làmb tey ah gis nañ combat Eumeu Sène Modou Lo comme que ni tey ah est-ce que fi ñu ko bëgg organiser ah dafa mel ni lu leer amugu ci bu fekkee Léopold la promoteur bi bëgg ndax boo bindee kayit jox ko nit ngir di ko laaj xëy na mu jox la ndigal ci fa nga ko war a tëggee te borom tontoogu la te ñu ngi doon dégg waxu tëj stade bi ah kon xëy est bi a dem tëgg ji fa ah. làmb yi pour man xaj na fa parce que stade la bu nga xam ne nii wala arène la boo xam ne nii li muy jël ci ay nit bëri na te it yaakaar naa doo am arène bu toll noonu ba sax dem di am problème foo tëgg loolu yaakaar naa xel nanguwu ko kon te yaakaar naa Lac de Guiers 2 ak Boy Niang bu ñu fa waree mën a bëri Modou Lo ak Eumeu Sène war nañ faa mën a bëri Balla Gaye ak keneen war nañ faa mën a bëri Bombardier keneen yaa ngi dégg kon loolu lañ ciy wax waaye nag du am nga droit ne laa bëgg a tëggee moo xam ñu jox la ko lu ñu bañ la koo ci mën a dégg daal moom yàlla nañu yàlla dimbali daal ba combat ba ñëw ak jàmm moo xam fu ñu koy bëree ñu bëree ko te fekke ko ko ak combat a koo wax Ama Baldé itam comme niñ ko xamee rek waaw caabi ji ubbi buntu bi daal mu loo ne moom dana ko jox ëmb waaw loolu moom dañ naan ko lu gën a jege gën a yooyu te nit mbokkam waaye nit itam dëkkandoom te ñoo bokk Pikine ñoo dëkk ëmma mag la ci ñoom di lépp ci ñoom kon defe naa lu mu mën a xalaat pour jox ko daan ko rek mu daan Modou Lo ko def waaye Modou Lo itam bu keroogee nit la ñuy préparé woo parce que combat bu méttee métti la waaw loolu moo tax parce que lamb itam dafay am rivalité loolu moo indi yëpp di ci am waaram wax yi nga ciy dégg yi nga di ko dégg waaw muy loo xam ne daal lu kii la Père Boy Bambara itam gis nañ tax Ibrahima Faye bës génn wax ci xaalis bi nga xam ne jot nañ ko dajale mu toll si ñeenti millions ak nangam ak yoo xam ne yaakaar nañ mu ñu di leen ñaan rek initiative boobu nga xam ne jël na ko moom Luc Nicolaï ànd kook Ibrahima Faye Beuz ak ñeneen ñi nga xam ne ko réussir ba booy bambara faj boobu ñu ci yéene yàlla def ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu wér que nag waa te yàlla tax am na solo lool ci dund doomu aadama yi waaw mais loolu daal mooy li nga xam ne nii ñëwoon na fi ci lit simple bi tamit drapeau soldat gis nañ ngi xamal ne daal fi mu nekk nii moom équipe yaa ngi koy xëccoo ci Fatick wala Kaolack ah nag xëy na moom li ko waral mooy dafa def ay performance rek moo tax loolu mën a am waaw loolu nag moo tax na nga xam ne daal moom mooy xool nag fi mu nekk nii fan lay bokki équipe na équipe bu Fatick lay dem wala bu Kaolack lay dem pour drapeau chef de bi <laughs> waaw ñu ciy profité di nuyoo ñëpp ñi nga xam ne ñooy waa lutte simple bi wala tamit di nuyu waa làmb yëpp Talla Ndiaye comme tey ni nga ko xamee rek àjjuma ji xam nga waaye nag tey sama benn jigéen boo xam ne mu ngi ba Allemagne ñàkk caaxaan Khady Rose Ndiaye moom maa ngi koy nuyu tey lay feete anniversaire am di le 31 mai kon xadiris dundal lu yàgg yàgg yàgg yàlla na la yàlla defal jàmm xam nga barkeel liggéey bi waaw vraiment mu nekk ku nga xam ne daal nit ku baax la di ko nuyu bu baax a baax mais itam du ma fàtte ñoom Fatma Fall ñoom di ay jigéen nekk bitim réew di daan seen doole moom mu ngi Bergamo Italie ñoom tuuti yaay Sarr moom tamit nekk Espagne ñoom ñëpp ñuy ay waaw di leen nuyu daal di leen ziar di nuyu internautes yëpp duñu fàtte kenn ñoom Mbacke Kébé Benzema dem xam nga sama doomu ndey yëpp nuyu naa leen ak ñëpp ñi sopp Babacar te yàlla rek tax parce que li may wax rek ñun xamuñu mënuñu dañuy jéem yaa ngi dégg kon képp ku ñuy bëgg rek ñu ngi lay delloo bëgg bi di la ñaanal jàmm mais ki nga xam ne nii mooy Mame Libasse ca Barcelone Italie Mame Libasse Lo ca Barcelone Espagne boog di moins maa ngi koy nuyu di ko ziar ñoom xam nga Habib Ndoye ak sama doomu ndoy Youssou Ndoye mais tamit taala tey xam nga ne tey la Aline sa joxe équipe bi nga xam ne nii wala vingt cinq jours yi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñu war a dem ca kaan ba kon am na ñaar réserve yoo xam ne dugg nañ ci biir ah, ñuy ñaan nag kaan boobu nga xam ne moom la jëm yàlla na ko yàlla may ndam li moom Aliou Cissé xam nga parce que tamit football la ah, mu ngi dem di wuti yàlla na indi coupe d'Afrique bi fii ci réew mi nu ne muy Sénégal woo na ñi ko ñi ko doy ñi des tamit nañu muñ loolu mooy àddina ku nekk ña la doy ngay àndal li am solo daal mooy wax dëgg rek te yàlla tax ànd te yàlla tax jàppante te yàlla tax waaye diwoo ma doy nag mu ne su ci dara tey mag maa lay doy force moom loolu moo wóor waaye Talla Ndiaye doy moo gën a wóor maa lay doy kon di balu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne réew mi di senegal daal yàlla na fi yàlla saxal jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam